waaye teewut mu dàq ko boroom kàttan yépp di leen jiitu ca jàkka ja këram moo fay jiite ca jàkka ja ajjuma mu dem ca jumaa ja te ku ne xam ne na ay atam ak li mu yannu ci lu diis ak wér yaramam mayu ko loolu waaye nag ndigalul yàlla daal lanul caaxaane moo tax kon ma ne jullit piir a ngi noonu ak taalibe itam manees naa wax ne ci moom la ak taaliba dëppe ndax ma ji muy seet muy ormay sëriñ tubaa ci njabootu sëñ tubaa ak or ma jim jox sëñ tubaa jox ko doomi sëñ tubaa moom la jox sati sëñ tubaa te moo yilif ñëpp jox ko sax ay doomi boppam yi mu jur ak taalibe foofu la mën a yem boroom xam-xam la it buy liggéeyal xam-xam ba mu jógee ba tey jëkk muy nekk sëñ Touba xam-xam ak daara rek a ko ñor ba taxawal ab université kon xam-xam foofu la kon nag yow sëriñ Seex wala sëñ Muntaxa seeree lee lii te sa baay nekkoon ci lii sa baay kat moo wax ne nii ma ñu mbooloo mi def nee na sama ndey taxut sama baay taxut sëñ Touba rek a tax kon nag ku ne dan sëñ Touba te geestuwoo kenn yamale ca yàlla nga dund ak yàlla nga dee mbooloo mi danañ la topp te duñ ko sañ a bañ waaye ku mbooloo topp ku ne bu ko tiitaroo bu ko ndax gënoo mbooloo ma njiit daa mënta ñàkk ñu jiital la ndax jiite taxu fee raw taxu fee gën toppe taxu fee yées taxul a gën a ñàkk xam-xam daf di mbooloo suñu àndee foofu kenn jiitu na ko sëñ Saliou daan waxee mi ngi mel ne saxaar ak bopp saxaar nee na bopp saxaar bi ñaaw na tilim na waaye bu ko wago xeebee ba lonk wuca du dem fenn wago itam am na confort ligsi na waaye bu yàkkamtee ba lonk wut ci wago du dem kon bopp bi daal day lonk wago wi wago wi nangoo lonk ñu ànd dem nag ak mi mi ak sa baay ci bàyyee ak ci muñ kon nee na da doon ab sang ku jaar nag ci yoon wi sa baay jaaroon ba dëgg nga ko jamoon jam la dangay sant yàlla kon yow la fi yàlla teg yilifal say rak te bul xool randal gi boo xoolee rondal gi gis lu la naqari te loolu taxul nga ànd ak ñoom topp ginnaaw topp ginnaaw ku nee na ku topp ginnaaw fexe koo xëj ba ànd moom nga liggéeyal sëñ Tuubaa ndax nit ñi léegi dañoo tàyyal dañoo gëlëm dañoo bëgg da ngay boot nit waaye bul gis loolu fexe la ànd ak moom rek na sa baay def ba moom cees bi muy ñëw fii ku ne xam nañu Thiès meloon te waxoon naa ko ay murit ngi fi ay xaadira ngi fi ay jàngoo ngi fi ay xibaadu rahmaan ngi fi waaye ñëpp la amal jàmm ànd ak ñoom ci xam-xam ci dëgg ak njub xeebul kenn nawloo ñëpp ba lii mu liggéeyal sëñ Tuubaa mu mën koo liggéey kon seex yoon waa ngi noonu nit nag ñett dong la am boppam ay bokkam jëfam kuy man manal sa bopp boo tëlee say bokk manal la soo dee sa jëf manal la kii fi jóge jàpp naa ne tey jii jëfam dana ko manal fam jëm ndax ci diine la tegoon tànkam ci taalibe la tegoon tànkam ci tab ak dimbale nit ñi la nekkoon ba jóge fi nëbboon boppam wane sëñ tubaa rek ba sëñ tubaa xëy wane ko ku sëñ tubaa nag xëy wane kenn mënatulaa suul ci àdduna seex yoon waa ngi noonu nit nag waxoon naa ko barki démb sëriñ Sall dem na du del si mukk di wax ak yéen a koy fekki mu wax ak yéen lam defoon ci yéen nag su ko gisul da ngeen am gàcca da ngeen rus dangeen ngeen torox te ku torox tànge ku ne war na koo moytu te ñëpp koo xam ne sa baay dafay bàyyi dara kenn jaar ci bëgg caa sàkk faw nga dagg nag aw yat jëflanteeg moom bu dul soxna sam baay yi nga xam ne keneen war na koo jël waaye alali àdduna ja lu ci laal rek nga dagg aw yat jëflanteeg moom kon su leen bàyyee lu baax ab yar ay teggin ak taalibe ngeen bàyyi ko bu ngeen dee da ngeen am gàcca mbooloo mi seex mii la fi yàlla teg moo wutu tey jii sëñ Saliou Touré seex nit munta ñàkk kilifa ndax yoon wi yoonu toppante la mag rak mag topp mag mag topp bàyyi kër yëpp bari na waaye ñëpp nag sëñ Muntaxaay seen kilifa mooy kilifa ak yoonu murit te daa toppe ba yàlla may ko lii kon nañ ko suturaal ca dimbale ko ba leen yaakaar ci moom bañ a tas sëñ Touba lañ ko jàppe ndax ni mu toppe woon njabootu sëñ Touba sëñ Touba lañ ko jàppe ndax jëf ji woon ci moom te ne ci moom diine ji ma nekkoon ci moom sëñ Touba lañ ko jàppe ndax taalibe gi newoon ci moom sëñ tubaa yonent bi la ne woon dann sëñ muntaxaa sëñ tubaa la ne dan ay doomam la fi nekkaloon na leen dann ay magam nekk fi moo leen dan bañ nekk fi tey jii rek mbooloo mépp na ko dann kon ku ñaan ñàkk soo jëndee da ngay daal di am ndigal nag moom daa tàng na kaani weex na xorom waaye soo ko rooñoo dugg ko day mujj sedd na galaas neexe na lem kon seex ndigal a ngoog lu sa baay amoon rek daal ndigal ak ko may adduna lëj na jaxasoo na wor yi bari na fen yi bari na woote gi lu dul dëgg bari na waaye dëgg nag boo ci ngoyee daa sew ba tol ne ak caas waaye du dagg mukk nag te ku bëgg dëgg fekk si la ca ngi boobaa ngeen ànd nekkal yow ci dëgg rek kon lii la sëñ Muntaxa waxoon ci soññi la sëñ Moustapha itam ay kàddoom mi ngi ci biir kàddu sëñ Muntaxa ndax yoon wi wenn rekk la sëriñ Basiiru mii moo waroon wax kàddu yi ndax mooy sama kilifa ñun la sëñ Moustapha boole woon yónni ñu mu delloowaat ma yëf yi loolu nag du asaar ndax ñun ñaar ñii sëriñ Saaliwu Ture sunu nijaay la waaye sunu goro la te ñoo bokk benn sëriñ muy sëñ Saaliwu tam jiituñu ci fopp nag man ñu ci fopp def ci luñ ci defut kon bu bis bi ñëwee war nañ fee teewal suñu bopp waaye war nañ fee teewal kilifa lii rek moo tax ñu ñëw kon ñi ngi sant kilifa yi fi nekk yépp di rakk sëriñ Saaliwu Ture yi fi nekk ñu bokk deret ak mbooleem xeeti tari torux fi nekk yépp damay bañ a lim di jum waaye ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm lii yàlla na fi gëj moo àdduna nag ñoo ànd dund ak dee wopp ak wéredi wér ak wéredi am ak ñàkk dañ ko du programme nag waaye ñoo ànd kon ku fi teew yàlla na suñ borom faj sa ajo ku fi andi njàqare yàlla la suñ borom teqaleeg loole waaw sëñ seexu naa mu sëñ Fallou lay présenté ñëwaale na nee na du présenté sëñ seexu naa ndax nee na bu teewee mooy moom mooy moom mu ne li taxoon mu doon bañ a lim waaye mun a ñàkk nee na day mel ne alxaaji maam Thierno yebal na ak njabootam boole ko ak sëñ koso mii muy sëñ xaadim ak sëñ jili ak sëñ basiru fekk naa fi itam déclaré nañ ma léegi sama kilifa bopp di sama waajur te jàngal ma muy sëñ as jaxate ñoo ngi koy nuyu di ko siyaare sëriñ kosom mu ne sëñ am Amsatu sëriñ Isaaqa mu sëñ Basiiru daf koo boole ak doomam mu tudd sëñ Basiiru ndax sëñ Saal dafa nekkoon xaritam di wëllëreem kon damay wax ne daal bokk yépp ñëw nañ sëñ Seexu naa mii nga doon wax ne ma ne du ko présenté moom day sama genn wàll day mel ne sax sëñ seexu naay wax waaye man waxuma waaye sëriñ fàllum sëñ Abdou Latif mii démb la ko sëriñ Muntaxa yónni woon ci sëñ Moustapha Salih fa lay yandu dem ca armeel ya fa lañ nekkaat ba minuit mu xëy ñëwaat nii tey dafa jóge ci sëñ Muntaxa dafa ñëwee sëñ Muntaxa ànd ak sëñ Koso waaye dafa ñëwee it ci sëriñ Moustapha Salih moom sëñ Saliou woo ko yar fekk na ma ma nekk njàpp njàppandal ci daara sëñ Saliou moom mii mu nekk ndoka ba muy dal jàngit nee na fa la fekk ca njaxate daaru mi nag moom dama faa dëkk sëñ koso mii maa ko fa gën a dëkk ndax xam na ci dara e nee na sëñ seexu naa mais xam na ci dara 78 ba 80 ca terrasse bu ndaw balaa daan fanaan bu sëñ Basiiru boobee damaa dëkk daaru minam kon wax ji du gudd ñu àggale ñaan gi rek di ñaan nag yiw wi nga xam ne sëñ Saliou Touré am na ko muy yiw wi nga xam ne moo ko liggéeyal boppam ak wi ko suñ borom baaxe pay ga bu ñëwee yàlla na daj adduna bépp yàlla na daj ñi ci kaw suuf yàlla na daj ñi ci biir suuf waaye yàlla na daj ñi nga xam ne ñu ngi ci ndigg yi te ñëwaguñ wasalaamualeykum wa rahmatullah ñi xam ne ne Serigne Moustapha Fall Mbar ñëwal na fii Serigne Fallou ak Khalifa Sall Baye Fall kon Serigne bi nee na nañ ñëpp maase tàllal waaw Serigne Bassirou mu ne wax ji kawe na njot kon ñu tàllal loxo yi waaw sëñ Cheikh moom soxna Bintu moom itam mi ngi fi moom sëñ Moudou Moustapha kenn ci yoon wi kon ñu nangu ñaan sëñ sëñ sëñ As Jaxate sëñ Basiiru nee na foo mën a nekk waaye yow yaa moom ñaan gi nee na yaa moom ñaan gi yaa war a ñaan nee na mën nañoo tàllal foofu ñu tàllal sëñ Basiiru dafa wax ni nañu tàllal loxo yi sëriñ As mu sëriñ Amsatu Jaxate ñaan waaw nee na fi mu toog rek na fa toog ñaan te ñëpp tàllal loxo yi ne ñëpp tàllal loxo yi sëñ Basiru nee na ñëpp tàllal loxo yi sëñ As Jaxate ñaan moom sëriñ am satu jërë ngeen jëf Mbàkke jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf amin ngeen jëf kon ñu dellu ci njàng mi rek